li woon démb egsi nañu ci on dit ak Mbaye mi nga xamante ne tey Samba Laobé Fall moom lay waxtaanee Mbaye Babacar ma bàyyi la nga nga xuus. jërëjëf xale colonel. Uh-huh. Euh, ñu ngi leen di bu baax rek macha allah euh, émission bi moom neex na ba pare ndax tey liñ fi développé moom la bu ko defee rek tey dañuy dugg ci kenn ci sunu maam yooyu sunu jàmbaar yooyu nga xamante ni seen taxawaay ci réew mi. mooy bëggoon rek eh, ñun ñi di seeni i sët bu ñu dikkee fekk réew mi eh, lépp jag eh, lépp baax lépp rafet rawatina jikko yi nga xamante ne nii bàyyiloon nañu ko fi muy mbaax muy jom muy ngor surtout ngor gi nga xamante ni moom ñu bàyyiloon nañu ko fi Euh, bu nu xoolee ci ngor googu buñ ko donnee bu leen ci royee euh, sunu pinc mi dina jag loolu mooy li wér kenn ci maam yooyu tey moom la ñuy waxtaanee muy Damel Samba Laobé Fall Damel Samba Laobé bokk ci kër la ci wàllu baay teen Thiendella Ndiaye moo jël Kumba Jaariñ am ci ma kodd Kumba Jaariñ ba jaariñ moom moo jur Bumbi Nguraan Maawo Bumbi Nguraan Maawo jël Fatma Cubb am ci euh, Birima Fatma ma euh, Birima Fatma Cubb dem fële nga xam ne moom moo di kawoon jël fa koddu juuf am ci ma koddu koddu juuf ma koddu koddu juuf la am ci sëy boobu ginnaaw bu mu dencee ma Codé Diouf ak ki nga xamante ni moo moo di Calaw Samb am ci ki nga xamante ni moom moo di Maawo ak Cendela ak Xaar ñuy juróomi doom bokk ndey ak baay euh, ma Codé di seen baay ki nga xamante ni moom moo di Calaw Samb ci doomam yooyu ci juróomi doomam yooyu moom la ñu jox Linguère Khourédio li Linguère Khourédio Mbodj moom Ngoné Latyr Absa Linguère Khourodio Mbodj moom Koddu Kulu Galo Gànna ñoom ñaar ñoom ñoo jur Damel Samba Lawbe Damel Samba Lawbe Fall nekkoon jàmbaar ju bari jom lool ju am fit lool jàmbaar joo xamante ni fit wa foo ko takk weesu na ko fitam réy woowu sax moo tax mu des ci gaar bi ci Tiwaawoon Damel Samba Laobé bi mu nekkee gone mu ngi yaroo mbul moo ki nga xamante ni moom moo di Alburi Birame Penda Njéemé bi ñu nekkee mbul ci seen jamonoy ndaw ci lañ bëjoo woon mook Alburi euh, ñu xëqante waxante ay kàddu ba Lat Joor jot ci ne Samba Laobé Alboury du sa morom Samba Laobé gis boppam daldi ñibbi ngàcc kër ndeyam bi mu demee ba nekk mag 1883 euh, ñu fal ko mu nekk dammel ci Kajoor ci la delsi mbul fekk fa Lat ne ko dama bëgg a fekki Alboury Jolof ndax danga nga ne woon Alboury du sa morom nga gis Garmi li muy làmboo ci jom làmbool ci ngor li muy làmbool ci ak bañ xam ne bëgguñu woon dara lu gàkkal seenu der bëgguñu woon dara loo xamante nii way lay doon woo xamante ni way wu ñaaw lay doon bu seen njaboot ñëwee ginna seen ginnaaw ñu leen koy netti nettali muy doon loo xamante ni doon way wu rafet jamono ju ne ñoom dañ daan sóoraale seen njaboot seeni doom seeni i sët mu jaraloon leen seen bakkan parce que bëgguñu woon mukk ci àddina way dëngee ci ñoom dañ daan bàyyi xel bu baax ci seenu njaboot ngir bu ñu ñëwee lépp rafet mm-hmm. Lat Joor ne ko bul dem mbul bul dem Jolof di fa fekk Alburi mu ne ko da nga ne moon Alburi du sa moroom ma bëgg koo fekkee Jolof su ma demee Jolof su ma reyee ca suufus jolos ma xam ne la nga waxoon dëgg la te doomi garmi bu daanoo ci ay sox wàcc su ma ko fekkee jolof su ma ko reyee ci suufas jolof fa ma xam ne la nga waxoon deñ na waaye Lat Joor rek buggul mu dem jolof di fa fekki euh, Alburi Lat Joor dem ci euh, boole ko ne ko dama bëgg nga teral ma Samba Lawbe bu mu dem Jolof di fa fekki Alburi gouverneur woolu Samba Lawbe ñu woolu ko ndànd gouverneur ne ko Samba Lawbe bul dem Jolof di fa fekk Alburi mu ne ko wax naa ko bokk Kajoor ak Bawol dégg ko te waxi garmi du fanaan àll dinaa dem Jolof mu ne ko boo demee Jolof loo fa yàq di nga ko fay Samba Lawbe ci fitu réew wa mu ne ko donnuma koy yàq di fay te dinaa fekki Alburi Jolof wax ja fasu ñibbisee mbul Lat Joor dem ba xam ne Samba bi fit lu day rëy te li mu wax dina ko def mu ne ko dama bëgg kon nga may ma juróom-benni fan nga toog fi moo wital la ay galaaj ndeysaan ndax ku ne xam na ne Lat Joor nijaay yi Samba bi lenqe la ndax Khourédia Mbodj ñu jur Samba Lawbe euh, Ngone Latir a ko jur ngoone Latir tamit moom moo jur Lat Joor kon Lat Joor di nijaay Samba Lawbe lenge mu toog mbul Lat Joor di ko wital damel Samba Lawbe nekk fa nekk fa ba Lat Joor wital ko ay gàlla gàllajam waajal ko ba mu yemb mu ne ko nag léegi euh, demal sugeer beri ngaraaf boo demee foofu nga waaj fa solo fa bala ngay dem Jolof Samba Laobé nekk Béri Ngaraaf moo garmi yi nga xamante ni ñoo ko daroon ñu nekk fa nekk fa bu ñu waree dem euh, Linguère tëgg gaajo euh, ñu daal di xas gaajo cérémonie lay doon boo xamante ni guddi leen ko daan tëgg bu ko defee dañuy teg am làmb ci diggu géew bi samp ab xeej garmi yi jóg kenn par kenn di xas keroog euh, ki nga xamante ni moom moo di Kumba Jaariñ moom moo njëkk a jóg tey ci xeej ba ne ko Damel Samba Laobé mu ne ko Fall mu ne ko man la Kumba Jaariñ euh, kenn mayu ma bawal dama rey seenu góor jàpp seenu jigéen ñu ne waxoñu mu ne ko nii kaa ñu fal la ne ko Damel Samba Laobé mu ne ko Fall mu ne ko bu suwaa bu ñu demee Gille Euh, maag sama fas wi nga xam ne dëkk ju yàgg laa ko tuddee soo ko xamlee lee mu gis le la dinaa la fetalal alburi ba ngi seen pëndub jolof ba mën na la gar di xas di xas ba ci ki nga xam ne moo di lat sukabe fari déggan moom it ca fitu rëy wa ko damel sambala bi mu ne ko faal mu ne ko man la lat sukabe fari déggan mboolem lu bàyyi jur rek maa ci gën a ñeme soo bu ñu demee gile ku fetal rey rek layu reyuma ko waaye koo seen xol bay luñ ci ca ginnaaw rek xamal ne maa ko dëbb am njokk sama xeej bi soo bu ndemee gi dinaa la fetalal alburi ba seen pëndub jolof ba mën na la toppalum ndax ndeysaan garmi yi noonu lañ ko jàppee kenn ku ci nekk di xas ndax xas daa bokkoon ci suñuy valeur euh, ba ci sax yenn ci ay corps ci réew mi lu demee ni ay gendarmerie walla ay médecine yu demee noonu dafay am xas boo jàngee ba am diplôme ba war a jël service da ngay waat loolu ñu naan prêter serment. noonu la garde yi daan def dan daan xas. lu masaana wax nag duñ ci dellu ginnaaw donte daal laaj ñu ñàkk ci seen bakkan noonu la garmi di def di xas ba ci Moussa Buri diggéen koddu mi nga xamante ni digganteem ak sambalaw bi jéggi woon na dayoo nga xamante ni Moussa Buri diggéen koddu moomu moo taxoon Kajoor ak Bawol fande ba nu reer ba sottee sambala benaa mu musa buri déggeen ko du ñu ne ko ñëwul mu ne kenn du reer te musa buri déggeen ko du ñëwul bët set musa buri déggeen ko du jógee jàjj ñëw fekk sambala bi mu ne ko garab yi muy foofu fanaan mu ne ko dama nekkoon jàjj kër Linguère mu fekk ma fa reyal ma ay nag di ma ganale mu ne ko biig dama ne woon kenn du reer te ñëwoo reer yëpp yàqu na tuuri nan ko nan ma reyalaat ay nag ñu reyalaat ko ay nag keroog musa buri déggeen ko bi muy xas dafa woo ñeenti jabaram ya joor dikkee ak joor rellaak ak joor may ak joor mu neex maaw ñu ne ko jën jaalo mu ne leen sàmbalaw bi daf ma sedd añu gor mhm. bu suwaa bu ñu demee gilla lan laa ko war a faye mu ne ko may nu nu gisee ñeenti jabar ya dem gisee ñëw ne ko bu suwaa boo demee gilla ñëw dina ko nettali matatoo nu jëkkër mu ne leen li taxoon nu nu bokk bàyyi man ak yéen ma jël wan ngeen ma ko soit bu ñu demee gilla maag sans fas wi yaaram mhm. ñun duñ delsi sunu bakkan lañuy fayee sàmbalaw be yaaram fasam wa ñu ne ko wëndal ko mu ne bu añab gor këppoo mu dëñi nga gis ne mag ñi noonu lan meloon ci seen jom ak seen ngor seen fas yi sax dañ leen daan wutal ay tur nga xam ne tur wu ci nekk rek am na lu mu wëndu tur wa rek bu ñu bu ñu ko tasee nga xamante ni du a jagal addina ñoom noonu lañ defoon gis nga maalaw mu ne lu mu rëy mbaam mu guddee ko rek na ko mën a gore mhm. musa bur diggan ko du fas wa mu ne maal yaaram bu añub góor këppoo mu dëñe noonu lan toppee woon seen fas yi noonu lañ leen daan tuddee kenn ku ci nekk amoon nga tur woo xam ne rek boo ko tuddee saw fas bu nu bu nu waxee la mu wund rek mu doy sëkk ci defar pénc mag ñi noonu lañ meloon sunu maam yi noonu lan meloon waaye li ma gën a frappé ci sunu maam yooyu mooy ngor gu yaatu bu làmboo woon te ngor googu dem ba bëgg naax saay nañ leen di fàttaliku ngir nu indiwaat jom jooju ak ngor googu noonu la def ba gille keroog la ca xew lépp xew ca ndeysaan muy xare boo xamante ni la ca feeñ ca njàmbaar ak ci jom ak ci ngor bari na lool euh, macha allah ñuy dem ba Samba Laobé euh, dem ba nekkat Kajoor nekk fa nekk fa ba ci jën ci ay jamono ci la ki nga xamante ni moom moo di lieutenant-chef dajeeg moom euh, Tivaouane Euh, Thion ñu ngi ko daan dugg ba moom moo nekkoon marché boo xam ne àllarba lañ ko daan dugg bi nga xamante ni euh, lieutenant Chauvet ñëwoon euh, nga xam ne marché bi bu ñu ko daan tudd dugg sàmbalaw ba da ñëw bu ñëwee dem njobb kër njobb foofu la daan toog nga xamante ni buñ ko dajaleelee mhm. li nga xamante ni moom moo di taxi yi ni jóge ci marché beeg yooyu moom lañ koy yóbbul ci la ko lieutenant fekk foofu ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay contingent ñu fekk ko fa mu daldi di euh, xaar ko kër Ndiob dem yónni ne ni wax leen sàmbalaw bi mu ñëw wuyu ma biñ demee wax sàmbalaw bi ne ko kaay euh, commandant mu nekk fa toog diir bu yàgg demul ñoom yónni woon biñ ñëwee toog lu yàgg sàmbalaw bi demul mu yónniwaat ñeneen ñu demaat une deuxième fois fekk fa sàmbalaw bi ne ko kaay wuyu mu ne leen maa ngi ñëw ñu ne ko commandant nee na boo ñëw dina la fi fekk mhm. ndeysaan ca jom ja ak fit wu rëy wa loolu yëngal deret ji rek mu daal di jóg daal di leen bëxër ñët rek wuti euh, commandant bu ñuy ñëw ba ci yoon wi ci la ci la ci la kenn ci ci seen groupe loolu ñu naan infiltration am ci seen diggante am ku soqi benn sox mhm. jëmale ko ci tubaab yi mu nekk genre infiltration fooga daal di am sox ya daal tàkk ci lañ raxaloo ci biir ba am ku ko jam keroog àllarba euh, di le 6 juin 1886 ci gar bi ci Tivaouane foofu la daanu ci digganteem ak lieutenant Chauvet Samba Laobé Fall euh, Garmi Suger Birame Diolmbul Farma Thiam Mexe keroog foofu la daanu ci gar bi ci Tivaouane 6 juin sunu maam jooju ci fit wu rëy wa ca njàmbar ja ak ca jom ja ak ca ngor ga mooy sunu maam mm-hmm. mu bàyyil ñu fi ndoon loolu ñu war ko ca roy xamee ko noonu sunu maam jooju Samba Laobé Fall